dal leen ak jàmm ñu xëy tàqan yéenikaay xëyndoo tàmbale ko libération yéenikaay libération yéenikaay la xëy tàqan naka ci mbirum Ndella Madior ak bébé yu nga xamante ni yor naka yéeme naka ci pouponnière Kër Yërmande boobee ku ko dégg rek dal dee yuuxoo ubbil yéenikaay nee naka mbir moo xamante ni doy na waar lool yéenikaay bi mu ngi tàmbalee ne lañ koy toppee naka moom Ndella Madior Diouf bëri na lool homicide volontaire maanaam rey ko ci xoltu gerte di def wàllu médecine naka te amoo ci benn yoon ubbi ab exploitation pépinière boo xamante ni ci amul benn autorisation administrative di traité ay nit moom la ñuy toppee naka ki nga xamante ni di Ndella Madior Diouf yéene kaay bi ne boo ko doon lim fii ba suba naka du dal jeex waaye naka ay léexoor yu bëri nag yéene kaay bi xëy na koo fësal assistant naka Cheikh Tidiane Ndiaye moom nag dal dinaa révélé ne nag assisté na ñaar yoon naka Ndella Madior Diouf naka ci ñetti accouchement yoo xamante ni ci mu ko doon teewlu yéene kaay bi di wéyal ba léegi naka di laqat ñi naka léexoor yi bébé yu sunduur bébé ay kon bébé Zoukeyla Ndella Madior Diouf bébé Mouhamed Samba Ndiobène Ka bébé Marema bébé Bijou Ngoné bébé Jumajeen Jaxate ñoom ñëpp nag dañoo ñàkk seenu bakkan ci anam yoo xamante ne si dafa metti lool te kenn yëgu ko nee na na bébé boo xamante ne si ki ñu moom naka dañ ko nëbboon ci ab paanu glace da ngay seetli rek nee na bébé Madické ak Mbaye bi nga xamante ne si moo di Reine de Saba nee na bu yéenekaay bi nee na léegi nag kenn gisagul leen xamuñu fu ñu làqatu El Hadji Sène moom animateur la foofee ci rajo Sasif FM bu Ndella moom nangu na ne dal dinaa suul nag ñaari yoon nag taalibe yoo xamante ne si ci complice kay liggéey ca cimetière bu Yoff ñoom ñoo ko dal de amal kookee sax yéenekaay bi ne ñu ngi koy seet AS nag auteur vidéo yi publié nag réseaux sociaux yi nag yéenekaay bi ne dama dégg nag ab personnel bi di wax ne nag am na bébé boo xamante ne si la ñu ko jaayee nag toll na ci juróom-ñetti millions mu ne loolee doyul nag ay biberon yoo xamante ne si dañ doon jël ndoxu robinet ak meew daal di koy jaxasi nag di ko jox gone yi loolee nag yéenekaay bi ne benn nunu boo xamante ne si moo ko dal dee fësal nag ay waay le peuple yéenekaay dikkaat ci leneen gannaaw 12 ans nag lu tolloo ko ci 3857 lim yi nga xamante recruté nañ leen ak

caaxaan ak gas yi ndax collecté nañ dépôt des candidatures fi ñu toll ñu bëri ña doon fëgg seen dën nag mujjee wu ñu déposé 79 rek ñoo dal ñoo dak woon waaye nag ca njëlbeen ga nag bëri ndax ñu ci bëri nag wàllum parrainage fere nañ leen yéeni bi di xëy di fësal nag ne ne 70 ñoo déposé seeni caution ca CDC lu ëpp nag ñaari milliards yoo xamante ni ci gars yi récolté ko ci candidat yooyu calendrier vérification xamante mun na wañ loxo état nag ba mu exécuter une décision de justice aucune disposition de loi boo xamante ni prévoir na loolu waaye itam am na réforme yoo xamante ni war nañ koo indi kaa Ousmane Sonko ay xalaat yu wuti nag dal na sa jib ay magistrat fi ni ku nekk yaa ngi koy xalaate yaa ngi koy wax nag dépôt des dossiers candidature bouclé les sept sages nag anciennes fi nag ñoom la déglu ñu mun a càmbar nag yooyu la candidature ñu wax élection waaye nag loolee boo mooy doon dina am ci régime bi ñu dal dee jàkkaar lool réinscription Ousmane Sonko ci liste si li yi bëriwut jublu moo di fexe rek bu gàntal Ousmane Sonko mu mun a bokk ci élection yi nga xamante ca la jëm cay élection yi mënoon nañoo bàyyi ñëpp bokk rek def ko làmbi golo ku mun sa morom daal Modou Lo Boy Niang seen combat bi war a taxaw yéene bi ne naka fi ñu moom Boy Niang amal na open press la ca xam la rek moo di Modou Lo bu yóbboo mu xamante ni si safar rek laay gis waaye combat boobu dinaa ko won bidiw bëccëg cey booña ñëw ko déggandoo jàngeen jëf ba ëllëg